samedi bii di ñëw incha allah muy ginnaaw suba bi idnillahi taala moom mooy bésu tamxarit ci la borom bi subhaanahu wa taala musale woon yent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam mooy ci firawna mooy ca ndox ma ba ahlu juif yi doon ko woor maanaam ahlul kitaab doon ko woor ngir lan mooy sant borom bi subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamante ni moom moo gën a yelloo bi maanaam relation bu yent yàlla Moussa ñoom ñoo gën a jege woo ñeneen ñi mu ne moom sallallahu alayhi dina ko woor waaye sax bu dee yàlla may na ko dund dina woor mooy que ni dixième jour bi waaye dina woor tamit neuvième jour bi borom bi subhaanahu wa daal di jël bakkanam ba neuvième jour bi mujj woor waaye nag sunna taqririya boobu doon daal di des sahabatul kiram di ko woor radiallahu anhum ak uh, ñi nga xamante ne moom mooy nitu aljanna yi radiallahu anhum ajmain kon uh, yow it na nga ko woor moom mooy que ni dixième jour bi moom mooy ashura mooy mooy samedi ak li nga xam moom mooy tasua moom mooy mooy neuvième moom mooy suba kon suba vendredi dañ koy woor ak ginnaaw suba incha allah taala moom mooy euh, li nga xam moom mooy samedi kon vendredi beeg samedi bi ci xadis yu wër moom dañ koy woor bi idnillahi taala am na yenn borom xam-xam yu bari yu ne nag bu fekkente ne mënuloo woor vendredi bi boobaa mën nga woor samedi bi maanaam mooy mooy tamxarit bi ak dimanche bi mooy onzième jour bi waaye nag li gën a wër moom moom mooy woor vendredi bi waaye tamit woor li nga xamante ne moom mooy samedi bi maanaam woor neuvième jour bi waaye tamit woor li nga xamante ne moom mooy dixième jour bi ku ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla da lay jégal bàkkaarum at mi wees yàlla na yàlla jégal ñun ñëpp suñuy bàkkaar mbokk yi ba bu ñu dajeeg borom bi subhaanahu wa taala fekk dañoo set wecc illa man atallah bi qalbin salim yàlla yërëm ñu ñun ñëpp dugal ñu aljanna kon nañu woor suba muy vendredi incha allah taala waaye tamit woor li nga xamante ne moom mooy samedi euh, bi innillahi taala neuvième jour beeg dixième jour bi ku bëgg a woor leneen li ci tegu tamit fa marhaban bismillah mën nga ko def waaye bum ñu rëcc incha allah taala tiyaaba yi ak xéewal yi yal na yàlla yërëm ñun ñëpp dugal ñu aljanna yal na yàlla sàmm ñun ñëpp mbokk yi musal ñu ci lépp lu bon min kulli charrin wa suu wa min kulli bala'in wa waba wa min kulli fitnatin wa musiba yal nañ yàlla may ñun ñëpp leerug bàmmeel ginnaaw ba mu ñu may mujj bu rafet waaye dugal ñu aljanna firdaws ñun ñëpp ci yërmandeem mën na ko moom borom sant taala yal na yàlla def ko wasalaamualeykum